being nice. And everything nice. That's why we civilize all Gambian talents. dégg-dégg yéen sa morom la ñu bëgg yéen a ñuy jàppale. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum foo leen ñu mun di seetaanee biir eh, Gambie ak fu mu munti doon ci àddina ñu ngi leen dalal fii si suñ biir kër gi di Gambian Talents eh, TV place bi nga xamante ne suñ fi toogee dañ leen a indil yëfi Gambie lu nga xamante ne loolu la Gambie am. tey nag Pula Ardo borom nag ak meew yi xadisoo di caar xoli yaayam xoli baayam day sow square moo leen ñëwalaat fii nii te mu ñëw ak yeneen feem wax nañ leen ne entertainment show bi dafay ñëw ak yu bëri dafay fëleefu kenn fëlewul di ñëw ak ay yeneen yeneeni feem ak yeneen yeneeni manière gis ngeen week euh, bi passé emuñ si studios yi wax naa ne suma entertainment show bi Gambian Talents emuñ fii kese dañuy génn di doxantu si dëkk bi foo xamante ne am na entertainment foo xamante ne talents mu fa pour ñu wone ko rek ñu wane ko week bale passé gis ngeen ma man ak ma ànd ak suma caméra man bu ñaawul boobu noonu kooku di Aida Kebe ñu dem fu ñuy wax ah, penc mi dem uyu ji kii di doomi réew mi ki nga xamante ne moom talenti boppam la am mu ko doon wane di wane li nga xamante ne loolu la am moom ak yeneen Gambians biir pencami xool kooku di jale maadi ñu mu woote woon bésee Independence Day ñu dem fa wuyu si wuyu ko ñu dem fa defee fa suñ entertainment show bi mu nekkoon bés bi nga xamante ne bés bu xarañ ñu tasee fa different entertainers different music sets both upcoming ak ñi nga xamante ne yàgg nañ si aar bi ñu tasee fa beneen international artist bi mel ni Aida Samba benn tey rek ñu defee fa entertainment show bi may jaajëfal kooku di Aida si ànd bu rafet bu mu àndoon man foofu noonu tey ñu ñëwaat si suñu studio si fii si Gambian Talents TV si seen beneen euh, programme yi entertainment show entertainment show bi ren ni koy defee Gambian Talents nag mu fi di promote lu Gambia am ñu leen wax na ni. bolen bëggé ñu dem rek bolen bëggé di am yenen ak yenen ak yi ngeen di am ci kër gi da ngeen ay subscribe ci suñu YouTube page bi ngeen like suñu Facebook page bu boba ñu indi leen yu bëri téma toga fi ki nga xamantene mu ne mom dafa saf sap dina leen bay ak saf sap mu dugg si mu nuyo ak ngeewel ya ñu yefi farama ren lañu wax yefi ngeewel lañu wax mu nuyo ak baat bu neex mu won leen entertainment lañu wax balaa mu ñuy wax kan moy saf sap dalal na la. wa alaykum salam Avant nuyoo ba pare ma fay suma bopp Gambia yëpp nuyu naa leen brothers yeeg sisters yeeg mère yeeg paa yeeg ñëpp nuyu naa leen du kenn ku dul kan saf si saabu kenn di Gambien seen raka seen mag seen xale seen doom seen yëpp man nag maay saf si ok léegi lu ma am pour fu mu nekk nii mooy lan Gambie bi ñëpp gis nañ naka la nekk di demee bari nañ artiste bari nañ underground artiste bari nañ big artiste ok yen dama leen di nga jaajëfal dama leen di because loolu lañ nekkati def nii loolu lañ support boo leen nekkati def seen help ak seen appreciate nañ ko ok music bi easy wul affaire bi yombul waaye noonu la ñu nekkati poussé nii tax na ñun suñ bopp dinañ gën a mën suñ talent because ku ni man mu fi ku mel ni ñeneen na ñeneen ñu fi loo xam ne mun nañ la man lu ma still mënuñ leen a gis mënuñ leen ok léegi nag time bi jot na pour ñu ràññee leen bëggee naa leen bëggee naa Gambie bi yëpp maa ngi leen jaaraama yéen ñëpp nag laay def te musique moo tax a jóg dama rap dama dugg afro dama tóor si dansal bi ok léegi fu mu nekk nii dama la bëgg a jox benn acapella bu ndaw guy would more understand ok ñu dem si dancehall style bi comme like sound echo comme like echo trip la ok wata ba jox ma ne su ma dem catti maan guwaan like dem batti su ma leen rombee rek am na lu ñooy wasi man eh bul wasi man booy ndax xamoo tus si man eh bul wasi booy xamoo tus fek ni nga si pere len ndax degen luus bu long wayte rek ma séré len degen yaaga si game bi ni nga yeen ay ciéré ngeen 500 sound imo ci boy xolal ay neene ngeen dalul len ma len leen len leen len leen gestu be pere tagge len teglante len pese len ay ray ngeen sen dil kalaté na len mané ni gas jiitu na len jarut ma sagal len kon ba rek ma xass len voilà sama dem chattimaan guwaan laay dem battimaan so la doy ma faj la benen <laughs> nañ dem ci beneen. ñu dem si beneen. nañ dem ok léegi ñu dugg foo xam ne nii loolu laay ooyee man sama yaay man sama yaay moom lay way balaa ma way keneen man ma way sama yaay oh sama yaay man moom lay way. balaa ma wéy keneen man ma wéy sama yaay kala ñu bégal yaay ñëw la ñu teral yaay bul fontoo yaay bëgguma gis kuy merloo yaay ah yi njureel dafa diis bul caaxane sa yaay man sama yaay laa gis man sama yaay laa gis man su may sama sama sama gars laa koy may gaa benn tamit ñooñu laa koy may ah yéen a dégg lu dugg see ngeen gis saf si sàpp moom moom mu ne def si saf sàpp Uh, bala ñuy dem gëna sori saf sàpp di ñu wax yow sa real tour yow li what is your real name sa educational background ak sa saf si sàpp bi fu mu ci okay man suma tour moy Peter Albert Sen Peter Albert Sen lolé suma né okay Wesley school laa defee suma primary school Banjul laa judo, la su waaf ka Banjul lu yaala sa go ñu combo wa dem Krabay la la suma junior secondary school then after from grade nine man foofu laa stoppé schooling miin lan kam like drop out daal then ma nekk si métier di jànga métier man am into painting and design ak construction man si loolu laa nekk léegi. lu waral nga stop grade nine. aw oh, ok dama stopanoon rek dama stopanoon rek suñ ma waxee demal school time boobu léegi léegi ma toog a booy xam nga. Psikoevism, Kirikara, Tefele, Chavante, Dugagina, Ginagin. But after months more, Mama decided to stop school. Wow, they could on financial problem, they could on school fees problem. They could have done a lot of you come like, um, wow, man la dal, ma decide. But from Lolo Tamil Street, I'm involved small was in nature. Sometimes I like Tamil Legi, Aglum Mundimel Tamil, Munasma Major Mangam Jobs Maboba. So, Rich Wulo, um, Linga stop grade 12. xam nga raada grade nine bi si stop jékki-jékki rek bàyyi rëccu wuloo ko si benn boor. ok edi bi daal dinaa jàngaat te bugga naa jàngaat yaa ngi gis bugga naa te dinaa jàngaat loolu ok rëccu naa benn boor bi because xam naa ne éducation moom waa éducation moom moom moom dëgg dëgg dëgg dëgg yow xam nga njëriñu jàng waaw ah, so loolu rëccu naa ko si benn boor bi daal. waaye still xam naa ne dinaa jàngal waaye comme que bàyyi naa school bi maa ngi involve si métier bi ak yooyu noonu waaw still because right now maa ngi mun a liggéey di mun a amal sama booba dama dee mun a tasee suma ay classmates ñoo xam ne ñu ngi liggéey si ay banques ak yooyu léegi léegi ñu gis ma maa ngi taxaw peinture waaye still day cool waaye xam naa ne dinaa jàngat tamit du soobee yàlla ñu ngi jàngaat loolu dinañu neex soo jàngaatee loo jàng dafa nekk loo xamante ne am eh, solo la eh, eh, lu am njëriñ la ban tey ñu xuus si biir interview bi rek ma bëggoon a xam saf si sàpp yow yow lu la dugal si wëy lan mooy la inspire ba nga dugg si biir ay way xanaa sa kër dafa am ku wëy wala si famille ngéwél nga judd wala lii lu mu doon waaw loolu dëgg la man suma yaay bu ma jur dafa jaar si kuwaaya baate lingeer woy si choir ba bàyyi ok ndax balaa nga cooj di woyu cooj songs yi léegi-léegi ma dem si choir bi xam nga am fa som comme loo xam ne nii moom a gën a nekk di put in loolu waaye man koo xam ne nii kooku moo ma inspire pour ma nekk artiste tey moom koo nuyu di ko gërëm mooy oncle Mohamed Kouyaté piano man la gaa ñu bari xam nañ ko kooku daf daan ñëw sama saay teg piano bi start di play jeeg su ma starté di kebetu di ra wala di lifin nii mu nga koo def so ma koo gërëm bu baax kooku nag moom moo ma inspire ma naa di woyantu because man christian la ma dama ko yàggal moom ba pare suma deret bi la yaay bu ma jur moom dafa woy si ko waayaa ba pare mu nekk nii mm-hmm. Iya. so lo lo mo gen atak nga dugg si wëy waaye man man yo da nga ya, yo fit yow ak ñu nekk gambia ya, yëpp ya, ñu toj ñi fuñ bëri ku nekk toj fu ne am na toj yow xaw man xaw fan nga toj nga jek jek rek si ak saf si sàpp yow sa saf si sap boobu non tur bo fu mu jógee saf si sap waaw saf si sap lu ko indi nak man neko de maa ko jox suma lo loolu neko tur bo xam ne dama ko designé jox ko suma bopp mm. man dama toj ay palas yéen fo leen xamul ko toj xam nga soo dee toj ngay toj ci kaw gaa dañ la dee gis yaa ngay toj ci kaw di wacha man ci ron laa dee tojee di génn di wacha ah. <laughs> moo tax loolu war laa yéem dama toj ay place man di man because man si crew la jógee man black wall crew foofu la mm. jógee ok man la break Breka Valley ak dem si yàlla si Escoba yàlla na suuf seere si kawam Breka Valley mooy magi jere ci suñ boo leen dee déggal bo bokk ndey ak bàyyi ñoo bokkul crew crew bi sax still mi ngay agree des nu demee la rek black wall mi ngay leave ok passé loolu dem na ba demee nii ok man maa ngi woo fu mu nekk def suma ay solos moom tam ngeen def ay solos sax moom maa ngi doon ay singles ak sow so man bu maa toj du tey. Oh, wax ñu foo toj limal ñu place bi nga xamante ne toj nga fa man. ok xam nga ñaata place laa toj. commencé ko kóotu. toj naa fa. toj nga Koto Banjul. Mm. rajaxe naa fa. waaw. <laughs> Shanghai. waaw man maa ko moom. Mm. man maay gaynde taxan bi. Mm. yow daal da ngay ma ne bàyyi ma mel la leen. am the radical radical shaking on corrosion. I'm started from the capital, the hood to hood, the town to town, and horizon and vertical. Rocking in the street every day with magical article. I speak rhymes. Niggas think it's magical, no, radical. But mun ko kal. Bàyyi oh my god. des na nag tojaguma. dama bëgg a ma toj. <laughs> Ah. fii si boppam lay ñëw toj si benn yoon. Gambian Talents nga nar a toj. ah ok kon baal ma wacce marka bi kon. ah ah wacce wacce gaaw ñun boobu duñ ko bëgg ok ok yow yaa ngi dugg ESAM ah, ci music industry bi mu nekk ya music industry bi nga ko waxee yombut music bi moom dugg ci yombut yow yan eh, tolof tolof nga nekk ya di jakk watal ci yoon. ah dëgg dëgg obstacle si moom waaw dëgg dëgg dafa stress. li ma nekk di daj moom dafa over waaw mënuma la ko expliquer yëpp sax waaye dama xam ne musique tamit soo siy dugga dafa yombut because number one yow da war a am financial sa records videos right now man suma bopp maa ay videos yaa ngi gis waaye comme sponsor bi number one dafa nekkul ndimbal bi dafa des léegi-léegi nga dem place bëgg a paa yi di la jéem a kale xool rek xeeb la fekk yow xamuñ ne yow sax boobu yaa ngi am talent soo comme loolu yëpp dafa nekk loo xam ne nii daal war naa comme loolu yëpp war naa mën a génn. war naa mën war naa mën a génn maan ñoo xam ne nii dëgg dëgg ñu ngi sponsor ñu jàppale ñu ne neen la Gambia lañ wax bala ñu wax foreign artist bi nañ ne Gambian artist bi first. Mm. gars yi obstacle si ma mënuma laa expliqué yëpp sax. dafa overpaid dafa overmade waaye still taxut ma give up taxut ma bàyyi de ba léegi ma ngi si kawam te ba gannaaw ëllëg damaa nekk si kaw ci kanam. ci kanam léegi zero zero no two guest international artist ñëw Gambie doon guest artist suñu amee suñu own artist man gëm loolu. man dama féel ne leena la sax. Ah. ok foreign artist bi. Mm. ak Gambian artist bi nga foreign artist bi su jógee dëkkam ñëw. da ko war a emale ak Gambian artist bi. loolu Gambian artist bi si boppam moo xam ne dëgg dëgg man am na lu ma jaar. waaye bul xeeb Gambian artist bi jël foreign artist bi égal ko si kaw xoolal léegi right now da ngaa dem léegi-léegi si yenn clubs oo yenn place. foreign artist foreign music rek ngay dégg foreign music foreign music foreign music foreign music ba tax na mu nekk ñu bëri ñu ngi involve si Niger bi am nañ suñu own music. may am nañ dara raab balaa bi tamit fii la jóge nastaan waaw raab tamit yàgg na fi suñ bos la nekkul suñ bos xawma waaye raab moom yàgg na fi waaw so nañ fulal loo xam ne ni ñun daal ñoo ko moom ba pare ñu respect Gambian artistes yi teg leen place boo xam ne ni foofu la gars yi teg foreign artistes yi at least mu tane. waaw maa ngi am manager suma manager moom si biti crazy beats moo lay mën a tourné. mooy manager bi ba pare moom mooy producer bi. mooy manager produce. waaw soo naka liggéey ak liggéeyam ak moom nu demee. liggéey ak moom moom dëgg-dëgg gisaguma si dara loo xam ne nii daal ñaanga na ko naari na. Ah. depuis bu mu jógee Dakar ñëw. jógee hmm. mën a jox maam fu mu nekk nii récolté lu ma almost three songs. waaw bi fu ñu ko mën di play rek dañ ko dee apprécier liggéeyam set na mun na liggéeyam. ba pare bugga comme bugga Gambie dem kanam. dafa tax moom mu génn Gambie dem Sénégal yoo ko expérience ba pare ñëwaat dem Guinée Bissau ñëwaat yoo ko expérience ba pare ñu toog. moom daal foog na ne su demee Séné Dakar ñëpp si dem Guinée ñëpp si si la muy gën a ex am expérience daal su desee biir Gambie. waaw because li xew mooy ok am nañ ay professionnels dëgg la waaye studio si soo leen bàyyi xel studio dañ utee understand ba pare gis nga comme gan experience is the best waaw man mën naa ñëw fii ok ba gis ne lii fii la yem gars yi ne ma non soo demee fële nga lii amul fii de fële la fii la yem si kanam waaw ma dem uti loolu noonu yokk ko si moom dafa dem yokk loolu noonu moom lu ndaw lu mu amee woon fii Gambia mm. dafa dem Sénégal yokk si leneen mm. jógee foofu dem Bissau yokk si leneen mm. léegi benn la amoon léegi am na ñetta kon si gaata. ñetta waaw yow yow man nga ma jaaxal yow da ngay def ñetta yëpp di eh, hip hop di def yu kenn xamul ba pare tey nga ñëw nii ñi may gisee damay gis fii di raak soo suñ fëlasee si raak dafa dee bëgg man ma xotteeku ma nit kaw ba si suuf. Mhm. yow nga ñëw fëlee nii lu ah man xam naa ne leena la man suma live ok déggu la ma ne la am dari dikka radical. Mhm. waaw mun naa la demal radical la waaye that's not me waaw at least subaa ñu war naa mën a jox cër yéen war naa leen a a jox cër war naa mën a jox cër ñoo xam ne ñu ngi maa seetaan. kilifa yi ñoom nyep Seera ñëpp ñu so man dama wara a at least in a decent way so at least ma look ni pada domi christian lana, to te yoo christian na la dee demee waaw soo foolee ak ay raas ak ni ni dala ki bandi so duma def at least ma decent ñu maa seetaan xam ne waaw ki at least ni ko loolu neex na ma torop li nga waaw ban tey rek ma laaj la li um, yow nga nekk an upcoming artist nga dugg si music bi yan assurance ngay jox sa fans yi ne yow nekk ay one hit ki nga xamante ne gis nañ fi woykat yu mag yi nga xamante ne dañu woy am ay fans nit ñi toppale ne lay fóolo ñu jékki-jékki génnee kaset benn kaset mu toj gaa yaakaar na toj na dëkk bi toj na wool bi rek loolu tax gaa ñu bàyyi affaire si mu yow ban assurance ngay jox sa fans ne yow doo def loolu kii man lu ma war a woo suma fans yi yëpp lu ma leen a jox mooy man maa ngi jox xam nga tooga su yow tooga su ñoree daf dee su naree nee dafa xëy. xëy rek xëy. man fu mu nekk di maa ngee job suma fans yi lu ma leen mooy. watch out leen ma. mais leen ma like few months. ngeen gis ngeen start di seetaan suma clips start di déglu suma music ba pare ñoo xam ne nii dëgg-dëgg suma fans lañ dinañ kontaan. musique rek la gaay bëgga dinaa leen bégal su leen bëggee naija suñ buggee dansa suñ bëggee hip hop suñ bëggee sa ndaga man musique lay def so man suma fans yëpp mais leen ma ay few months rek projet si mi ngay dox léegi promotion moo des ak clip si mais ma tuuti rek léegi tey ngeen dégg saf si xam nga man saf si bagage yi la woon man may saf si bagage yi <laughs> waaye bii faa dafa ñëw mi ne moom mooy borom bagage yi ang paak bagage te ko mu may sap si sap. so yow yow lu ko jaaxal yow eh, su biig fa ya, ñëwee ne la moom mooy borom bagage yi te yow yow yaa nga ne lan sax si bagage lu dah nga war a big fa borom mu doon borom bagage yi xanaa da nga big fa wala biig fa mu la ëpp ay bagage lii la man ku ma xool bu baax xam ne gis na ragal loolu lay niroo de waaw man dama i ma téye Mike suma moromi góor téye Mike ñu joxante ko ba mu saf waaja nga xam ne yëpp dëgg la mm-hmm. so Big Faa su ñëwee mu ne Big Faa borom bagage yi ok borom bagage yi waaye man nag maay saf si saab man si lu nekk si lu nekk laa saf su ma liggéey sax dama si saf <laughs> si lu nekk laa saf so Big Faa nekku ne dama ko ragal also su ma nee léegi-léegi ma génne sama classe ko ñu ngi amee studio right now I'm working with the NMG Ñaamaatoo Music Group music group la right now suma producer bi mu ne mi ngi toog suma music partner tamit mi ngi toog koo xam ne ni ñun am nañ combination sax ci Naija music bi so man fi man aw ma ragal aw ma tiit man aw ma kenn soo leen bëggee ngeen indi artiste mu jógee Sénégal mu ñëw mm-hmm. wala mu jógee feneen foo leen ko yàq Amérique sax mu ñëw ragalu ma loolu waaye li yow mooy ok du ma ne saf si saab saa big fa borom bagage yi dama ne saf si bagage yi saf si borom bagage Iya. saf si saab rek nam doy na nan dama si saf si saab sab ngi si saf di bu baax loolu dinañu leer na def si saf saab loolu astem gosoon ñuy déglu li muy def li ñuy xool sa xarañ si si music musique bi rek dinañ si xam dara ah de rek ñu dem si dér nga nekk di yëngu si different façon yi music si yi nga yëngu non yëpp yow si ban si nyonga nga gën man si yeb laa xarañ nga am na dafa wara am benn bi nga si boobu nga gën a taxaw nit du ko li nga mëna jëm fi lambatu fi dem fa de waaye dina am benn bi nga xamantene bobu nga gëna mën bobu nga gëna taxaw yow lañ bu nga xam si yoyu yëpp si rambalax bi si wax nga ma be nga ne afro ni sax yaa So ci so yow si yoyu yëpp ban nga ci gëna taxaw ok man si buma commencé sax la la wax moy rap hip hop fofu la commencé di rap ñep ko wax luñ la wax sax hip la rap hip hop loolu man foofu laa commencé te foofu laa gën a saf tamit nag waaw laa gën a saf foofu laa gën a xarañ tamit. yow si rab nga gën a saf nit ki su dee si rap nga gën a saf lu tax ko suloo si rab bi kese nga jël si bool si xam nga ñetti yëpp euh, ñu ne ah, li doo a def ah, ñetti yëpp at the same doo mun a def lii def la la yëpp boole ko benn yoon loolu si rap nga xamante ne boobu yow wóor na la wóor yàlla ne. yow bobu nga gën a taxaw te bobu nga gëna munte mun kula boobu ku la si taxaw ku la si jëngu ku ne ku la songu nga daan ko lu tax fu ko sulo ci bobu kese nga def jaxase ya koog yeneen façon lu lu la sonn. ok man luma feel moy xam nga kam ya su la talent. Ya. expose your talent do ko dencha dama daan rap nit ñew gis ma ngay rap dégg nga ngay rap may sing nit ñew mi dama boy yow da nga mëna sing ma start di sing si biir sing bi ma amne ne man mun na def lo xam ni without rap mun na dem because man comme nu la ko waye adi bi man am am into music music lay def ba music amul frontière dafa melni ni buy daaw rek ken amul fan la mo teer go so man music lay def mo ra dama feel ne man waruma am si rap rek mm-hmm. warna mo mun a afro warna, naa su ma neexee sa way ndaga because yalla mo ma talent bi so waruma ko naj su ma neexee ma rap su ma neexee ma sing dancehall yeb lay do raab moom dëgg dëgg dëgg dëgg man foofu laa commencé te foofu laa gën a xarañ waaye tamit loolu taxut mën naa si. da daal bu baax. loolu loolu dina ma leer léegi dañuy move si suñ beneen bi léegi suñ ñib si waatee rek nga xuusal ñu si biir géew bi ak benn si sa afro man ni mi nga xamante ne mun nga ko. ñu xool ndax dëggantaan <laughs> boobu tamit xarañ nga si. afro beat la sax. Mm, fan yi ñu dégg nit ñi di. wax ñene yi di wax wax ju bari naan nit ñi maas yi balarag seeg yoy ñu naan ministry of tourism dafa war a dañ ko wara separate ak ministry of culture yow as an upcoming artist yow lan nga am pour wax ci lolu ñaari ministry yoy dañ leen wara separate wala dañ leen wara bayyi ndax artist yi ñu ne dañ leen wara jox ñoom seen gëdd si yëf yi so yow lolu am pour wax ci artist yi luñ kaas bu war nañoo mën a def lu mel noonu because Gambia toll na foo xam ne nii daal artistes yi war nañoo comme luñ soxla yi war nañu ko mën a jox dëgg dëgg comme suñu neighboring country yi naka lañ di assisté suñu artistes yi BSDA bi ak yooyu noonu da ngaa mun di fayeeku ngay am aan yaa ngay aan xam nga fu nii. den loolu daf loolu daf la gën a encourage ci musique bi daf dee tax xoolal doo dee gis dara lu dul lan musique daf laa jaral sax nga bàyyi sa job. concentrate ci music because óor na ne ne lii dafaa dem te lii dafaa nekk loo xam ne dama si am income comme nekkul loo xam soo foofu man lu ma am pour waaw mooy xala dam si lu a wala lu ah, lu bëgg ah. ah. nekk si gannaaw lii la ñu ne loolu la because pour ñun ñëpp la du nekkul pour moom kii la rek. Mm-hmm. so moom su ne lii la rek jarut xëccoo wala nii de nañ ko def because suñ own benefit la pour ñun ñëpp nekkul comme pour moom kii la rek bala nag moom kii la rek du artiste waaye soo gisee moom si boppam moo demee sojee loolu au gars sojee loolu dafa xam ne lii daf ko arrangé arrangé wàll ñun upcoming artiste yi so it's right. xuusal si géew gi ak si sa benn si sa woy balaa ñoo continuer si si biir interview Ok, ma Okay, Moyobola Naija. Man fo Moyobola ma wuyu si la. Waaw, Afrobeat. Fo mu oo oh, ma wuyu la. Yeah, bon léegi jox ma beat. Ma mi? Ah. Jëlal, def ko nu mu la neexee. Dama jox beat. Def ko nu mu la neexee. Hale bi bul ma di sore te ma jege Rasio reglay bege Jaga yega la gumma ginaw Sabi mo tama bebe bege naw Wala bisa sufa sufa Jaga butaga butaga butaga butaga bi Kamu jola butaga bi Kamu jola butaga bi Butaga butaga butaga butaga butaga butaga Low like a low Fire eh yeah When I'm in the building Diva eh yeah Baby take 'em down Baby can you take 'em down low Baby take 'em down Baby can you take 'em down low The place go out like fire Fire We will blaze the fire the aton of ni nga Fire fire Yeah man jox leen ko ñoom ñoom yeneen jànq yi man nga génnee ma si dégg nga ma <laughs> génnee ñu si ñun Gambian Talents jox leen ko ñoom ñëpp ñëpp nga bàyyi ñu ñun si biir ah. dégg nga ñu fàttali leen rek yéen a ngi seetaan am Gambian Talents ah, TV ñu toog si biir kër gi fii nekk fii ah, kenn si upcoming artist yi kii di saf sap saf si sàpp la wax moom nak mom lañ fi togal tay mu nek ku xarañ mu nek ku juk mu naan ne mu ne nit ñi nañ ko support ndax nit ñi dañ soxla support ku fi tok ku ne loolu lay joytu muy support ñun ñi nek si biir kër gi fi sax support la ñuy nekk di di ñaax ndax ñun fu ne wax nañ leen duñ dem si ben euh, government wala si ben euh, place di fa ñaan euh, ndimbal te ñun yeen yen ñu taxaju yeen yeen yéen ñu fi taxaju tok buñ naré dem fenen ñooñu mën nañ ñoo tek ay conditions yi nga xamantene du leen neex te duñu neex lu ne yéen yeneen ñu fi teg lu leen neex la ñuy def wax nañ leen ne seen i bët la ñuy xoolee seen i gémmiñ la waxee te seen i tànk la ñuy doxee moo tax soo leen ñu dimbalee ngeen subscribe si suñu YouTube page bi di ngeen am yu bëri ak yeneen ak yeneen nañ dugg ak yéen fu bëri ful ak yéen fu bëri ak foo xamante ne kenn fullu fa ak yéen ngeen xam ngeen Gambian Talents dafay fëlee fi nga xamante ne kenn du fa fëlee buñ fa fëlee nag ba pare keneen doog a ñëw fëlee ko fa yena ba ma no no noob noonu rek ngeen ay def ngeen ay pour le Ardo show bi toga ak bi may mayo yi soo Pulo borom nag ak mew yi man nak may borom nag ak mew yi bo soxlee mew rek so ñëwee mo may la nga naan mandi. séeréer la nak sa la la do ma ko nangu de. xay do ma ko nangu. do loolu dina sama bour loolu du am. dina leer wuu déedéet. Eh, séeréer lay buuri pour. ah ah. Nindi pour Pël moy mooy jaami Pël loolu lañ la wax. boo dégloo woy bu baax sax loolu la la kat bi waa waaye saf-saf man dama la mere ñëpp dinañ ma déggatee dama la mere saf-saf man dama gis ci sa Facebook page bi si ñi nga like seen page si yëpp benn Gambian artiste kese nga like page am bi muy Sura Suso te Sura Suso nekkul Gambian Sura Suso dafee nekka six months mu nekka outside yeneen six months yi ah waaye benn tey nga like ki nga xamante ne mooy Akhlou Brick Akhlou Brick ñëpp xam nañ ne ñu ngi am ah, Sénégal waa Sénégal lañ ay rapport lañ foofu noonu waaw doo xam nañ ne ñu xarañ ne ñu ngi def lu bëri am ñu gis la nga like Peace Square Peace Square tamit ñooñu ay Nigerians lañ mën gëm naa ni Gambia suñ buggee ñu dem am nañ ña nga xamante ne ñu suñu artistes yi mun nañoo look up to dem here in the Gambia bam tax ñu ñu mun a dem to a next level waaye as an artist ngay xool ci keneen outside comme ku mel ni Akhlou Brick axlu brick aduna du neex ba nga mel ni axlu brick aduna du neexit ba nga mel ni euh, P-Square you are a Gambian dama bëggoon nga daf ma doon neex torop soo seetee si ku mel ne Souré Sosso is not a problem Gambian la doo mu ngi fële mu ngi fii waaye ba tey Gambian la am nañ fi yeneen artistes yi nga xamante ne macha allah Jalimaadi programme bi bu ñu fa demee ay décembre si boppam daf doon atmaaye Jalimaadi ak tuwaat externe bi nga xamante ne maay bi daf ko téye di xool Jalimaadi déggantaan mu xam ne kii macha allah lu mu mun li macha allah ñoom si seen bopp am na bu soxla nañ ko mu am denn uh, si guitariste yu mu fa nekkoon di contrôle ñaar fama ñetti instrument at the same time dafay laal bi teg laal ba la teg bu mu teg rek sa xool bi sedd kooku bu mu eggee ak kooraan bi kii nu Aida Samb dafa taxaw joxoñ ko di xool ne xoolal leen ma xale bii. ak mo xarat gambe ñu am talent yoy noonu yëpp why not ñun suñu artiste yi ñu look up up to them on those people and not foreign artists nga nga gis sa Facebook page bi yàgg like ñoom Akhlou Brick ñoom P Square ñoom Issoura Suso ñooñu lan la ñuy def si sa music carrière ok du Facebook nga wax. Facebook la wax. facebook bi ak book bi. waaw go Facebook loolu la gën a media. Mm-hmm waaw soo bàyyee xel man ñooñu ma aar yëpp man du ma dee communiquer ak kenn du ma leen dee seen message duñu ma dee seen message xam nga like moom su ne nii rek nga ne ko taj roma man lu beer, def biir Gambie fii ak suma moromi artistes yi xamante nañ ñu ñoom tam 50 du tey sax dafa yàlla ñoom kaatim ndee link comme nu ma la ko waxee ñoom Brita Valley daa mel artistes yi daal anyway ñu bëri ñu bëri ñu ngi link waaye nekkul comme mbiri Facebook de direct because dañoo am show ñu invite ma ma ñëw ma def dara su man comme nii comme nuñu jaakaarlooyee nii loolu lay mën a jaakaarlooyee gars yi ñu nekk friends nekkul comme lay ay Facebook de because man su dee Facebook rek la rek mm. man comme Facebook daal anyway waaw baax na nice na gars yi ngay promo ñu ngi lifin waaye man loolu yëpp comme dafa mel ni lu romb la rek waaye si biir Gambie fi ñu ni neen ñun Gambien si ñun Gambien artistes yi xamante ne yow fooguloo loolu dafay wàññi si yow lu bëri ndax ku mel um, big femme moo organise programme am mu invite la nga ñëw nga wone fa li nga amoon li ba mu tax ñu bëri di la bàyyi xel di la toppa di la follow mu yokkal ay followers lu tax jëluloo nga like page am bi ku ñëw si sa facebook bi dégg saf sàpp dem si sa facebook bi gis ne yaa ngi like am kii di wax ne ni euh, nu daal tuddaati big femme nga xam ne yéen ñaar yëpp ay Gambians ngeen you helping each other because su la ooyee si place am si euh, programme am nga perform you are helping yourself I mean, so so so so like page on Facebook loolu tamit daf koo yokkaat di la yoka, because dina wax ne ni yëg ko Why you ngal uh, like ñi nga they are not Gambians they are outside outsiders they come to the Gambia but so seen soo outside they will not invite you for the performance, si um, show or anything so you so like a page yaa ngi yoka. est-ce ya que yaa ngi understand yaa ngi so yow man daf ma jaaxal lu tax lay kuloo ñuñ am Gambia fi, bi ko su dee am nañ fi ñu ko mel ni wala ñu gën a xarañ Peace Corps su dee Akhlou am nañ fi ñu gën a dof Akhlou Brick ok waaw so lu tax yow seetuloo follow waa comme sa mbokki Gambians yi instead of ñooñu outside, yi nga like seen page yi di leen yokk ay buzz ak feem ok gis nga Facebook bi si boppam ma wax la leen si gàttal gis nga Facebook si boppam man suma boppam ma ci sawru Facebook jar jala rek la ci am man dama bala ma like page Facebook Big fa ak because ma anytime na do toog close ma Facebook ak ma nekk ci yene man non la mel so man bala ma like am page ak yooyu noonu comme gis nga hmm. ñu toogee ni tok ni ñu def ñu ay def xamantene ni ni neen Big fa man suma producer si bopam mu ko jobal sa so ñu ni neen dañ dé tassé ñu ni neen dañ dé mëna waxtaan ñu ne neen dañ dee mëna a ay affaire understand nga so nekkul comme ay facebook ak yoy man dal anyway facebook man suma woo man ci sawar soo ko bàyyee xel suma duggé tay bala ma dugaat ya la am tax man dama dee mëna nek di scroll rek or like ta ta man pere naa after man loo yaa waaye ñu ma communicateur whatsapp ak yoy man loolu laa utile daal waaye nekkul ne comme maa ñu di publish media bi lo xam ne nii man mënuma dana na du man man du man dal facebook bi dal comme non jaar jaar rek laa si aw ma off génn naa ko sa pour wax ak yow whatsapp is obvious ne su déggee sap si sap facebook la moo dem man ma invite la fii Gambian Talents ah. sap sap na lii ak la mun mënumaa wax ak yow daay ma dem sa facebook bi ma toonaa pour gis ne yaa ngi like keneen télévision am maybe outside the Gambia lan nga ne man noonu xam nga ne at the end of the def man du ma la ooyaat fii dan naa wax ne ni danga ma xeeblu dama la oo interview la ba pare lay guloo suma page bi toppaloo ma nga dem toppa keneen outside yi nga yokk kooku noonu ay fenn loolu loolu loolu laa lay bëgg a yëgal ne man soo ko defee dinañ ko defante biir Gambie <laughs> léegi loolu buñ tasee kon nawal <laughs> waaw demee noonu sax li xew mooy hmm. affaire yi daal foog naa ne comme even without that Facebook sax hmm. waaw things dafa mën nekk waaw moo tax lu ma la Facebook daal jaar la rek jaar la waaye ñu ne neet luñ nekk di kukk luñ nekk di def hmm. anyway jarul ma wax ko waaye mi ngi ñëw yooyu lu ma la waxoon rek toogal su naree nii su bàyyee dafa xëy am na yenn ay man dama nekk koo xam ne nii tamit dama comme dama secretif am na yenn du ma ko dee publish because man suma maas yi wax jigut ma du ma koy publish dama ko dee laa wax dama ko dee denc ay time su jotee rek ñëpp dinañ xam ne mooy loolu hmm. yow loo ma wax dina tax man suma booba hmm. léegi man may gën a mën a lifin si Facebook bi bul dégg ay ñoom ST ñoom biir kàmm booy yooyu yëpp like comme yu suma Facebook friends yi bari naa ay Gambian artistes ñoo xam ne ay suma friends la ñoom waay yëpp waay di suma friend la Facebook démba démba rek tase nañ si afro saf safar bi fii démba démba rek lañ gisee si afro saf safar bi xam nga ak ñeneen ak ñeneen. waaye man daal la ma fiir ne bi du loolu gis nga marta bi su ma ko téye. Hmm. stade bi toj. Hmm. waaw si nga soxla am nañu dégg. boo ñu tojalee Gambie dina xam fu ñu ma toj Gambie sax. dafa am <laughs> yenn placement dafa am yenn dafa am toj rek yoo xam ne bu baaw dañ ko war a condamné. ñu nga toj fa. toj fa ñu defaraat ko. Hmm. waaw ak big famille ne lu fi yaaw ñu defar. waaw comme noonu rek. waaw yow nga lu ma jaaxal da nga fit balaa may deere saf si sàpp solaan ma singlet wala defaral ma yaram yi ne nataala dugal Facebook xaw ma lum ñuy won xaw ma dem ñoo won ñuul xaw ma loo ñoo won bu dee ñuul gënoo maa ñuul ak yow. Hmm. gënoo maa ñuul gënoo ñuul sama caméra bi tamit. maa la gën a ñuul. <laughs> loolu léegi yow loolu nga ñoo won. non demeewul noonu sax moo tax ma ne la gis nga Facebook comme noonu rek. Ah. comme nekkut loo xam ne dama si over concentré daal dëgg-dëgg. Facebook conseil truc ma si comme noonu de. Mhm. yeah because man tam nga dama dee busy sometimes en pare studio la rek gën a nekk daan ay Facebook ak ni dama dee dugal léegi léegi du may read sax imaginal de du ma read sax comme pour read sa naan naka la. Mhm. tak rek lay def rek continue. Mhm. tak rek continue. nga jaar làmb rek. waaw maa leen mën a rek snap tap tap rek ma upload ñu suma saa waaye kooku is man la du kenn ku dul man su soo ma man ngaa gis su ma nee ma def ngeen sonn neen ma snap ko Facebook. ok xam naa loo ñoo jaay. ñuul nga ñoo jaay te su ma paree dem damaa dem ñuulal su ma paree loolu du dinañ si si ñëwaat ndax su dee ñuul nga maa jaay dinaa dem ñuulal ma wala ne maa la gën a ñuul mm. waaw boobu dinañ si dem euh, waaye si 10 years wax sa xalaat dégg nga affaire wax sa mooy euh, music euh, award buñ joxe fii nii biir Gambia fii si biir foofu noonu ñu gis ñu ngi jox kii di gisul five awards si wax sa xalaat music award bi awards yu mel ni song di the am na ko collaboration of the year jox nañ ko tamit award bi people's choice album of the year yooyu yëpp jox nañ ko ko yow foog nga ne am si award yu jox noonu gisul yëpp foog nga ne ndax moom deserve na song of the year award. sure deserve na ko gisul suma ragal la ko jaabee comme suma ragal. après mm. even su nekkut loolu sax daf ko deserve. because right now foo wëndaalu da ngaa dégg sam sam mi mobile yeeg fu nekk da ngaa dégg Alright, I am the next big thing. Oh, Unek, can you come like? Are you not the next big thing? Yeah, of course. So if you are the next big thing, lu tax nggak nga wara deserve na the the song of the year award. Ah, dia nggak sam sam. Eska dia nggak masuk nga ko suma song? Good. So si loolu lah nih. Waaye mom award suñ ko I said now daf ko deserve. Dégg dégg Deserve na Yeah. Su gelo, lu ñun suñ bokk. Ñu ngi job ñu ngi job. Man tam tam ma award. Hmm. ku taxaw tamit ngeen ne disaafut ko tamit ba xam ne da ngaa añaan rek waaye man añaanu ko ba pare ma nga doon wan ne man ak magi jëy rajisul ku mbokk ndey ak baay ñoo bokk a kuréel ah, yow yow yow yaa so yow a mu bokk ak kuréel doo ko mun a iñaaneef doo mun a wax dara moom su doon ko sax yow di nga ne disaaf na ko du xam fi ngay waxee du man déglul gis nga man hmm. laay dama nekk koo xam ne man mënumaa añaanee nit hmm. non non man melu ma noonu. ñëw gisul daf la jënd jaarale ko seen magam. non non non non noonu sax. Eh, magam bu ma wëy. fekk ah, ma ne loolu moo am. caméra yi dañ ko fay wax ñu rek. lay wax. wax magam moo tax rek. Ah. dafa def lu nice dëgg dëgg. Ah. dafa def lu nice bi ñëpp dégg ko apprécier ne kii lu mu def dafa nice. Hmm. so loolu daf ko deserve waaw na ñëpp ñu gën a liggéey rek ku bugg a mel ni moom. Hmm. nga joob comme nu moo joobee. masa ko soxla nag da wala see si si si eh, terati jadi madi bi balaa ma ko mun a approche ma tasee moom fekk moom def na lu muy def li ba wàcce stage dem ñibbi moom ak attaque yëpp maa ngi lay wër si xaw fi may tasee ñoom su buggaat dañ ko yóbbu war di leen gis ñu fi waaw bentee ñu dem si biir eh, ñu gis ne di wax jox nañ di attaque ñu nañ ko lum ah. attaque jox nañ ko upcoming artist bi Uh, um, upcoming artists what is your take on the um, artist award given to uh, Attack Attack ñu uh, new artist of the year award You as an upcoming artist you are also a new artist. sure so what is your take on that. ok Luma for film, feel mooy comme lu ma la doon wax si ok right now Attack mi ngi yëngal comme lu Jizzle di dangay dégg song si ada lagi, ñun la ñun la ne xam nga nag waaw yaa ngi so obviously yow soo dia ba nga xam juga dia yi ñëpp ñu koy déglu sa deserve na mel hmm. so yow ya, deserve loolu mel noonu man deserve naa lu mel man maa ngi man man déglu man marta man ko attaque dafa dëgër fit pour am attaque loolu dinañ ko wax ñu bëri loolu lañuy wax attaque dafa dëgër fit attaque da ngay dégg artistes yi dañ lay wax attaque daf la xool ne la sa programme bi bési nangam la te bàyyi foos dama ñëw te su ma ñëwee bàyyi foos damay perform si jalimaari bi da ngay dégg jalimaari mën a ko ne yaa ma xool nga ne ma bàyyi da ngay ñëw te bàyyi da nga perform te ñëw nga bàyyi foos te bàyyi da ngay perform attaque lu muy def rek fit moo ko si dugal man loolu lay wax dafa dëgër fit moo tax mu lii moo tax ñu jox nañ ko euh, new artist award lañ ko jox yow nga ne lan ndax disaaf na ko wala disaaf. ma ne góor fit. Hmm. disaaf na ko. Hmm. yee. yow daal disaaf nañ ko yee. bu ko dama dee toog maa ngi déglu som sam yi si dëkk bi fu nekka maa ngi def kii eh, attaque attaque nii li ma jëloon soo yi jëre gisul bi am lay kañ la woon am penc bi woon hmm. man maa woon man capanaa naka la demee bu mu yow jos bu stage capanaa tonab bi naka la demee woon yéegi dafa hit audience dafa hit crowd bi instant ma 얘기해봐도 su ne ah tëf aja ñeent ne ah tëf so kooku obviously su fekkee ne dafa am loolu daf ko deserve tamit because job na ko waaw waaye lu ma am pour wax mooy saf si saab nañ ko bàyyi xel maa ngi job ay songs di plan suma ay videos mi ngay ñëw loolu su demee ba taxaw muy attaque bàyyi baabu yëpp ma paak la ma de. Hmm, ñëpp naa arrêté ñoom ñëpp. dafa leen ni paak. ay yaa ko wax de. waaw dinañ la si topp. so man fu mu nekk nii may ma time tuuti rek. rek hmm. di ngeen dégg saf si saab si booba xam nga before saf si saab. Hmm. laapasees la woon. man la si MC Ndaare gis ma booy seen fitna risque duma xool yëpp di confesse. waaw. after laapasees bi dem saf si moo tax ma ne nekkut man tur bu ma jox suma bopp dañ ma ko jox dañ ma ko jagleel. parce dañoo dem place mi ngi xala oo oh, mi ngi xala boori man ma ñëw ma xumbal ko ma tàngal bu baax. Ah, xorom ñëpp nangu ne waa affaire yi saf na. ci hmm. la ma soo man ok gaameen artistes yi ñëpp comme waruñoo añaanante. Mm-hmm. waruñoo kalewante. Mm-hmm. dañ war a supportante. so kii su nekkee si kaw mu óor na ne ok laaba bi ay laada bi ay like ten steps la rek. yow dem nga ba am three or four five steps. Mhm. su dee yow benn four or five steps moo la dese. Mhm. ok no problème moom mu ngi si kaw waaye léegi may ko moom mu muuf rek yow nga ñëw taxaw balaa sax. Mhm. mu jeex tàkk. soo da ngay may yaay mu def loo xam ne ni yow da ñëw teg sa laada boo xam ne nii two two steps ngay jël two four six eight ten. waaw léegi nga ñëw taxaw si kawam. nga gën koo gaaw. gën a gaaw gën koo gaaw xarañ. yow loolu nga nar a ñëwee. bu baax. ñëwaat. ndax bi yow bi bu di expect nañ ne di nga fa jëlee award ban si award yi sax su dee yow sa di nga nar ji award ban si award yi ngay jël new artist album of the year wala ban nga koy jëlee. ok dinaa am ñaari award. ah ñaari award nga wax. waaw because daf ma wóor ne maa ngi job songs yoo xam ne nii. Mm. suñu starté di ko promote. ba mm. vidéo si génn. Mm. su fekkee añaan amul goroj amul dinaa am ay ñaari award at least may banaan ban dina am album of the year ba pare dina war a mun a am ay like comme artist hay saf si sàpp wax na de sa fans yaa lay seetaan lu leer la gars yi wax sa xalaat ñu ngi lay déglu di la gis make sure linga nga wax rek nga dox si ok ba next open mic buy ñëw dinañ la fa gis soobee yàlla looy nar li ma nar mooy lu ma toog a si mm-hmm. yeah te dama ko wéer fu dëgër sama producer baa ngi nii toxic si biir music partner bi ngi toog si biir xam lagi ya la man NMG nyamato music group loolu music group la so man man dama dafa am song yoo xam dapat dama ko job ba pare comme dama ko óolu parce que gaa dégg de no? bi non guy in the town bi foog nga my guy in the town bi may yëngal town bi nga si ña may toj town bi ma ne foog ma toj town bi tasaare rajaxe ah kare foog na teppi nañ fekk teppee nguñ man may toj di tabax ja di defar di dindi te indi di gindi ngeen di wax noonu seen jéem a du mooyu leen ndax te ngeen mën a fen man mbele mbele tegu ma fi coow kese kese nigga wax kese kese mel ni jigéen yu sol fer fii loo fi mun di wax nigga ma ne dafa wala clair xool ma bokkuma góor yu dox di diwoo si clair ay rab joosuwam bokkuma góor yu dox di yëngal wam góor jigéen bi boonit xeesalkat bi boonit hip hop lañ wax rap style in the street life rolling with my nigga Jarvis, you know temperature. I'll tell where lu ndaw la lay ñamal because project bi is not yet out so man may gaynde town bi saf ci sap sàpp gaynde town bi saf ci sap sàpp gaynde town bi tojal town bi fele town ni Banjul bi nga tax fa ak waa Banjul ak ñu nekk Banjul ah. ñun ñi nekk fi moytu ñu rek ñun bu ñu fi tojal ñu soñu fi tojalee fi duñ ko tabé dañ ko tabax dégguloo may la may toj di tabax da nga toj di tabax wa fu yaaxu dama ko rajay pare ma tabaxaat ko mu jox fofu suñ fi yaaxu woon non fii moom fii dafa fii dañ ko wara dañ ko wara extend yow nga wara a ñu ngi lay xaar nga dimbale ñu ci so paré ya, rek ak sa fans yi ak sa gaay rek nga wax ak gaay rek ñu gëna défarat fi fii ñu défarat ko fi ñu gëna am yenen artist gëna mëna promote luñ am li because ñun lu Gambie am loolu moo ñu jox a ya, jóg loolu ya. dinañu neex torop bo ñu defaralee loolu ah ben tay ci biir wax sa xalaat bi ñu dégg ki di am mu tuddaati Dani Constant mom ak ah, sister bu fa nekkaloon ñu ne gambien artiste yi duñ dé mëna represent suñ ah, dëkk bi outside dañ ñu dee disgrace outside suñ get yow loolu loo am pour wax loolu si loolu. Ah, ok because li xew mooy um, soo nekkee Gambia yow fekk it nag comme suba maas la olof rek ka dee wéy. Mm. ok suñ la waree yóbbu ko maas yi UK yow dégg loo anglais bu correct comme man nii yow duñ la mën a féer because dégguñu olof. so musique bi dafa dem toolu foo xam ne nii international musique dafa loo xam ne dangaa dem su dee Amérique la Japan la fu ñu la mën di oo dangaa génnee loo xam ne nii loolu la ngay dégga ba pare ñu fiil ko ak message bi tamit consciousness waaw so gaam artistes yi dañ war a bàyyi xel leena nekkut ne fii rek la ñoo am bi nekkut ne Gambie rek la moo am suñ bos la nag waaye nañ sóoraale leena musique bi dafa war a génn because musique fu mu demee ba génn rek kenn moomatu ko dafa war a sori so suñ la jóg waaw da war a nekk comme like yow da war a wéy comme awte yi ñëw wéy gars yi mun laa fiir because doo dem si digg tubaab bi ngay làkk olof gars yi dala xool kon di si sëy lan la moo wàññi so duñ la mën a fiir obviously ba pare dafa am ñoo xam ne nii ñooñu ñoo fit pour ñu yóbbu leen outside ak ñoo xam ne nii fituñ pour nga génne leen Gambie nga ne bu dee yow sa fans yi ñoo a génne yóbbu la outside loolu kenn mënu si dara di su dee man dama am ay fans ñu nekk Sénégal ñu bëri fa lool ñu jékki-jékki ñu ne dañ may yóbbu Sénégal te su ma yóbboo Sénégal si plateau yi te 2STV wala TFM lañ maa yóbbu wala si seen télé yi benn obviously su ma fa demee maa ngi dem foofu noonu de doo suma fans ñoo fa yóbbu maa ngi dem si turi Gambie may dem représente Gambie so in that case man ma nek am entertainment journalist wala man ma nek artist yakar na ne man suma ma pour represent suma dëkka warna represent suma dëkka in a way that should be if everybody there will respect my country will know that wow ki Gambian la and this is great loolu loolu la di ni so sa ci suñ la fa yóbbu yow sa boba da nga wara xamne ni dañ ma indi fi pour comme da wara represent suma so da ngaa def sa kentalaay kaatan doo dem ba foofu doo nekk fii ngay yëgal ba pare kay dem ba foofu di slack because soo gisee sa fans yi war laa ekkati yóbbu la fi bu place bi comme dañ la óolu it dañ si yow moo tax ñu la yóbbu la tax dama feel ne ah bay war a versatile da nga war a flexible da war a versatile fuñ la oo nga uyu luñ la wax nga tontu yee so su fekkee ne artiste dañ ko yóbbu Sénégal oo Angleterre oh, au Germany au oh, Sow tamit ak artiste am te fan si mën nañ la pose gis nañ fi ñoo xam ne nii comme dañoo dañoo woy wele wele waaye bul dégg after lu mu ñuy waaye still ñu ngi am sponsors gaa ngi am support xam nga bu am ñun suñ boppa understand nga so loolu moom obviously daal ah comme que noonu la demee daal ah. because comme yow rek nga toog rek xool ma rek nga ne ma ne dama la bëgg a yóbbu toog Angleterre dama laa ne yee rek dem as ñu never before foofu noonu su ma waree wax kii ma ne ah yee su ma waree dis ma ne dat te comme dëgër fit nag nekkal suma saay waaye xam nga la am xaalis sponsor them. ma dem na waaye ñoo xam ne new ñooñu lañ war a yóbbu ñu ngi fi ñoo xam represent Gambia outside Gambia tamit ñu ngi But in Gambia got talents man they dëgg Gambians have talents they are gifted music fee Gambia daf visa. fi commencé ñu bëri dañ ñëw fii jàng fi musique def fi musique ba pare génn dem te ñu ngi gis bénéfice bi waaye ñun Gambie fu mu nekk nii ba léegi ñun mënuñoo comme mënuñoo yow ñun suñu musique ba léegi dafa des yow industrie bi dafa overwhelmed overwhelmed support bi dafa des sponsors yi dañ des. sooy noonu nga gisee Gambian music industry bi. ah des na de support bi des na de gisu leen fu mu nekk nii yéen yéen a tax fu nekk raay na ok maa ngi mun a feeñ si so yéen sañ maas yi ñu pour ngeen take over conquer because yéen yéen ay mën a yóbbu things yi right now noo leen ko nekk di defee nii lii mooy move things yi waaye gaal bi duñ ko jógee benn boor rek ko jógee benn boor su yàggee mu suuf de mm. so gaal boo xam ne dafa war di dem represent Gambia tamit nañ koo cegaat bu baax war nañ koo xool xam nga mm. bàyyi ko xel xam ne kii fit na pour mu represent Gambia pour bañ ñun suñ der yaaw waaye duñ xool rek ne waa kii la rek ñu yóbbu déedéet waaye raay bi war a ya, seet xam ne kii la moo fit bul mu dem kooku fit kooku mu dem ku fitut nga toog dinañ dinañ eh, seetaat ci loolu dinañ ci liggéey bu baax a baax si ban artiste lañuy yóbbu ndax according to Saf Sapoor du ñëpp a fit pour dem represent di bi outside am na ñi nga xamante ne daanoot fit te am na ñi nga xamante ne war nañ jéem di war nañ ñoo ñooñu lañ war di yóbbu ñuy represent outside waaye man si sama gis-gis foog naa ne every artist every Gambian artist man yaakaar amna hope ne Gambian artist buñ fi ekkati at any time ñu ne la jéemal nga nga represent ñu at this place war nga ñoo represent in a way that ñun dinañ ko apprécier waaye benn tey rek ñu ko ne ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa ni ngay understandé fu mu nekk nii we running out of time time is not uh, on our side ah, benn tey balaa ñoo uh, jeexal balaa ñoo wrap rek ñu bëggoon a xam yow sap sap what are your plans. ok man suma plan nekk nii like the Gambia music bit. ok maa ngi wokkal loo xam ne nii su demee ba su demee ba sooti dina nekk suma bénéfice ak bénéfice yi ana ana yeneen underground artistes yoo xam ne tamit ñu ngi ñëw because comme nu ma la ko waxee NMG bi ñaamaatoo si group bi loolu nekkut man kenn nekkut ñun rek man suma bopp maa ngi am underground yoo xam ne nii man maa ngi leen a future ñu ngi ñëw am nañ suñu full studio fu mu nekk nii. soo ko amee ne na am na talent rek comme doo leen waxee ci ma ñëw rek wax nga ñëw so man suma plan mooy pour musique bi si boppam Gambian musique mu dem si kanam taxaw fu dëgër gars yi start di déglu Gambian si ñu toog di gis ne waaw changes am na ñu gën a mun a jàppale wante ba nga xam ne ñun suñ bopp dañoo mën di créer suñ own events benn open mic bii nii rek man understand benn open mic bii nii rek festival bii nii rek man du am non war nañ di am like comme carnivals yoo xam ne nii dafaa nekk ay like one week understand one week suba ba ngoon suba ba ngoon suba ba ngoon suba ba ngoon suba ba ngoon every day one week dem gis nga boobu noonu xam nga ne su dee yow nga ne underground artist am nga talent ah. stage baa ngi free daa ngi am full stage nga ñëw ñu jox la mic nga express sa talent keneen ak keneen noonu keneen ak keneen noonu keneen ak keneen noonu keneen ak dem ba tollu foo xam ne am nañ une disease te gars yi am nañ talent so man suma plan fu mu nekk nii yëpp loolu la naka la ñoo traité movie bi sa sa ay plans rafet nañ euh, torop torop macha allah ndax fu mu nekk nii Gambie am na talent yi nga xamante ne is high time nit ñi gis ko is high time ñëw support suñu Gambien si ndax luñ am euh, bari na te unique na euh, macha allah open mic this year expect nañ pour gis la foofu noonu dinañ nar nañ daa gis foofu. waaw su soobee yàlla full hundred percent so su dee groj dawut dawut ok maa ngi am loo xam ne nii song boobu si boobu xam gis nga gars yi de town boobu ma laa wax ni c'est la gars yi di xam ne maa dëgër fit na xam nga ne dama dëgër fit mm. yow dasa gis suma dëgër fit daal <laughs> ba nga déglu gars yi town bi mm. dama sut vidéo bi su ma ko sutee si yow laay njëkk a ñëw sax seen la ko si yéen laay njëkk a ñëw jox leen ko après ñu dem saynaate du am si boobu de mm. from boobu beneen mi ngi ñëw kabuga mamele sipo okay do your thing and let me do my thing we don't care if you don't love my thing we are gonna do me thing, real Batman thing. No boy can't tell me how to do me thing, cause some of them attack when them no thing. This a 2019, yeah, me press the button, me a rap, me a acapella boy, me a sing. Call me the radical, radical king, so me bad for me born like sour ranking, me a beef and dislike, no man thing. Must up the place like big man thing if I talk, tell me no freedom nothing. I'm, I'm, i fo jëlee rek kan kii bi yow tur boobu foo ko jëlee. ah ku la jox tur boobu. ah Redika Radical. waaw dégg la ma ne la dama di seen maa ngi di seen nag waaye. ok Redika Radical comme lu ma mën si Redika Radical mooy ok. xam mm. nga relax. comme nga radical si relax. man dama bind relax comme anyhow man doo ko fi so man dama radical si bëj bi dama radical si relax yi so am na Redika Radical. yow ak sa yi nga am nii sa feem yi nga yëgu mu ñu bëggoon na nga yow iya, si fu jamono buñ tellu ni kan mooy paccal sa kan moo lay oh, daaneel kan moo la tere nelaw ok kenn rek la nag mooy ami abu ko abi ah, commencé yaa yow daay waa abu ko nga taan. ma jeeg su ndaw si eh. may rek moo lay daaneel paccal suba limon may xar suba mbuuru di fa def pota mayonnaise sa computer ak omelette ak eh. eh, moom la ami kenn rek nag ma jub de waxuma yeneen artistes yooyu noonu de. am mm. fii am fi am fii am fii non man mënuma contrôler <laughs> kenn rek laa xam waaye li problème bi mooy. Mm. moom tam bu mu jéem a traité mu jéem a arbitré man kooku laa xam kooku laa xam. nga dem ko takka. non takkagu ko sax. waaye dama koy takki plan nga pour takka ko. déedéet yow déglul de xam nga leeral. <laughs> Uh. man ok. man daal right now man mom la am da dinaa takkaat. du ma takkaat. yow seen alal si kanam. ah yow nga ne bu le la moy mooy pàccal sa demo moy xar sa mbuuru di fa ra rib. luy nelaw ci yow it moko koy yee. te te yow dal mom leur yëpp nga wax ko ci bir ñu ah nga mun a asoo ne ñi ne dañ ko takam am ok ah bu dee do ko takk tey nga koy bàyyi. bu ko feneen waxuma ne du ma ko takk waaye dama plané wut lool boko ko plané est-ce que dina am. su ma ko plané dina am kay loolu dem ba plan kay moom su si yàlla àndee aca yow dama la gisee nii xaw ma ame na tëdd xaw ma ame yow di jëntil kii ay mbiram man kii waxam yi mooy loolu benn tey ñu ngi ñëw si laata part bi ñu ngi nuyu amee di nuyu ñim fi jota mention seen turé yëpp ñu ne leen nuyu bu baax a baax ñoomin ataan ñoomin gisul dégg ngeen lu saawaay wax mu ne moom iñaanut si benn boor euh, award bu ñu leen ti jox deserve ngeen ko macha allah ñu leen lay congratulé si seen liggéey bu rafet bi ngeen ay def nuyu képp ko xamante ne seetaan yaa ngi seetaan fii balaa ñoo dem rek ñu bàyyi la nga joxe sa last word si balaa may tàggatoo nga jox ñu yeneen acapella pour suñu euh, place bi gammeettanes ak pulo arɗo cuuɓi tagato gambi yëpp man nu ñëw woon maa ngi tagato maa ngi dookeel ñëpp nag gërëm naa leen ñëpp waaw starté ko suma koto yu ma daan encourage melody bantang jacobs limbo crazy karim down to banjul suma koto yëpp suma yaay moom duma la because man suma yaay man kenn rek laa am si doom bu góor la di la bëggee yow yaa waral lii yaay yow yaa tax tey man ma toolu fii nii su ma maa ngi bëggee Gàmbi yëpp yéen ñëpp bëggee naa leen aw ma dara dara dara dara lu ma leen def lu dul lan ma bëggal leen su may ma time tuuti naa leen génneel songs yoo xam ne nii mosu leen koo dégg Gambie bi Gambie day Shanghai maa wut big up everyone yeah down to J so ma nuyu naa yëpp léegi yu nit acapella ok Everybody man I feel get to lover. Everybody girl you feel get your lover. You can't get no girl. Go for your lover. Can't get no man. Go for your lover. Treat him good, never cheat your lover. You go into the club, got to go with your lover. No matter what you do, never fight your lover. You true partner, so we call you. So I born batty boy them, they anonite the girl them we say and that's alright. You could not get girl no need for you to hide. Real gal is out the road. You have to know your right, get your girl we want. The girl with the naughty, you know how we was. We do it like ratty. Anyway we step, yeah we born the body. Me mouth out the road. If you out ask art, we salute man. To everyone man, huh? Big up yourself man, art, soldier, Zigzag, and all the crew man, sniper, where you at? Big up Nyet man. mënumaa wax yëpp nag a dëgga because bëri nañ waaye bëggee naa leen su ma juumee ngeen understand su ma mistake ngeen understand waaye bëggee naa ñëpp ñëpp to the fullest man yow moom Paul bii nag yow mm. yow xaaral rek yow moom yow yow rek yow yow xaaral am naa lu ma def dëgg dëgg dëgg man kay looy def lu ne na doon ay jàmm mm. te booba yow tamit yoot ma bëccëg àndal xaama nga xam ne sama gars yëpp dinañ ma gis loolu la am pour waaye nag mën nañoo fay toogal nañ bëri ah, suba gars ma leen ay ah, jaajëfal si seetaan bu rafet bi ngeen ay seetaan Gambian Talents ah, TV ak topp bi ngeen ñuy toppal ñu leen ay ñaax rek ngeen subscribe si suñu YouTube page bi at the same time ngeen like suñu Facebook. page bi Gambian Talents nga ma leen ko waxalee ñun fii dañ fi nekk pour luñ am biir Gambie dañ fi nekk pour nit ñi pour Gambien si ndax nit amoo dara lu dul foo jógee ñu ne ah, soo ñëw si àdduna ay nit lay taxaw soo fee tamit ay nit ñoo lay taxaw soo duñ def dara lu dul bégal nit ñi fi am ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne Pulo Ardo Show bi ngeen doon seetaan fii si Gambian Talents borom nag meew yi di leen fi toogal chaque jour saa yu nekk rek ñu nekkal leen fii nii. fu ñu nit di seetaane si àdduna bi ñu ngi lay gërëm di la dalal ñu toogoon fii ak saf sàpp dañ leen ay indil fii ne different façon yi artist entertainment lañ leen wax bu turi polo ardo bi yóbbuwaale leen ngeen foog ne yëfi pël la pël laa waaw waaye yëfi pël taxul maa jóg yëpp moom ma tax a jóg loo xam ne am na pour defal entertainment rek loolu la moo ma tax a jóg upcoming artistes yi ñoo ma tax a jóg ñu nga xamante ne am nañ tamit yi nga xamante ne soxla nañ pour nit ñi gis ko soxla nañ pour nit ñi xam lu gaay am moo tax dina leen fi toogal di leen isil upcoming artistes yi dina woon lan la Gambie am euh, si ron ndax Gambie dafa nekk dëkk boo xamante ne bu ndaw la waaye am na lu bëree bëree bëri lu am pour dafa entertainment muy comédie muy loo mun munti xalaat muy musique na doon entertainment rek soo ma ñëwee si man soo jàkkaarloo ak nga jàkkaarloo Gambien tamit si soobee yàlla lépp dina dem si Gambie ci kaw Touba ca kanam man la woon seen xarit seen soppe toogaloon leen fii di Hady Sow Pulo Ardo borom nag ak meew yi may jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi doon seetaan di wax monsieur Diouf Pa Ousmane Diouf. nga nuyul ñi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi biir Amérique fàtte wuñu waa Germany waa Sweden Europe. fu ñu nit di toppee rek bentee fàttewu ma suma kanam bi ku si jaar kooku di euh, Bintu Ceesay Ceesay Ngaari bi nga xamante ne moom mooy fële kenn fëlewul moo fële si kanam bi moo yàq kanam bi nii ma koy jaajëfal bu baax di leen wax ne nii Gambian na ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp may nuyu Fatou Samba ak Aïda ak Adama nga toog fii nii tey ñi nga xamante ne ñoo nekkoon si gannaaw euh, caméra bi ñoo nekkoon si liggéey bu rafet bi bente jërë ngeen jëf euh, yoon incha everything nice. That's why we civilize all the Gambian talents. Dega dega yan, senora blanyo bugo yan, and you ijapale, si lepolo yo neck, Gambian talents. Japale ni, you japale.